ñuy dooree ni kii nuñ ko euh, di defee rek saa bu ñu xëyee euh, di standard newspaper wala ñuy daal di rek tàmbale ñoom nag ñu ngi dikkaat ci li nga xam ne mooy euh, ñeent fukki millions yi nguur gi joxe muy contrat bi nga xam ne amal na ko juróom-ñaari media house ci biir réew mi Eye Africa TV ci la bokk ci yooyu media house ñu rek amal ci noonu nag ba tey coow li mi ngi koy wër ndax nag ñu bari ci askan wi dañ ko ŋàññi jàpp ne media house yooyee dañoo rek daal di wor askan wi ci contrat bu ñu jël ki nga xam ne mooy jëwriñal jébaane gi muy ministre of docteur Ismaïla sise ci ba muy euh, janook jàmbur yi ca ngombalaan ga euh, daal dina ci addu ci euh, ab laaj bi nga xam ne ki ko samp mooy jàmbur bu jànjam Janjanbureh di Mr Jammeh moo ko rek daal di laaj lu jëm rek ci contrat boobee moom it nag di docteur Ismaïla Cissé daal ci dellusiwaat di justify maanaam di indi leeral ak firnde yu tax yooyu la contrat nee nag lu ko sabab du lenn lu rek fexe askan wi di gën a mën a jot ci programme yi nga xam ne nguur gi mi ngi koy def ak ci yenn xibaar yi nga xam ne daawul mën a jot muy rek mën a fiil the communication gap ci diggante nguur gi ak askan wi bokk na ci yoon yi ñuy defee rek eh, te ñu koy defaree ci xaalisu askan wi su ko defee askan di ci mën di jot ak lépp loo xam ne luñ eh, lu leen soxal la ci wàllu xibaar ñu koy mën a eh, daal di jot moom boobu lay leeral la daal di indiwaat foofee ci kanamu jàmbur yi muy ci député yi ginnaaw ba nga xamee ni honorable Jammeh di jàmbur bu Janjanbureh laaj na ko loola ñu wax ci leneen ba tey ci biir standard dañuy ñëw ci nga xam ne nag mooy jëwriñ yor wàllu alam bi maanaam ministre environment di roxi euh, euh, di roxi euh, Mandiang moom ci boppam nag daal na àddu wax ne képp koo xam ne ci askan wi jàpp nañu la ngay daal di def loo xam ne wala jumtuwaay boo xam ne dafay yàq lu jëm ci rek àll bi muy forest yi nga xam ne dañ ko faggu ngir rek gën a sàmm alam bi des nañu rek teg ay daan yu tara tara tara tar loolu nag la daal di xamle mi ngi ko daal xamle ci ba mu dooree li nga xam ne moo di après que nemmeeku ci yenn barab yi nga xam ne nag ci réew mi la nekk nekk ci la rek àddoo loolu ne rek dinañu jël ay euh, li nga xam ne rek moo di jéego yu tar ci képp koo xam ne euh, jàpp nañ la ngay def li nga xam ne ni dafay doon luy daal di yàq li nga xam ne rek mooy alam bi waaye rawatina euh, lii di forest bi euh, dinañ la rek teg ay daan yu tar ba tey ci biir standard donte que sax tey jile lañ waxoon ci mbiru ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko muy di court to deliver verdict in Ousmane Sonko's trial today waaye sax verdict bi ci boppam far na daal di tabbi moom Ousmane Sonko di former interior ministre bu réewum Gambia. Eh, daal di nañu ko tëj ñaar fukki ati kaso eh, ginnaaw ba nga xamee ni nag am na ay tuuma yees tegoon ci kawam eh, ci lu rekk jëm ci ne ci jamonoom bi muy liggéey ak njiitu réew mi Yahya bari na ay ñaawteef ñu teg ci kaw doomu aadama yi lu jëm ci wàllum ci waaxe maanaam réeb lu jëm ci wàllum tocco maanaam rek gumbu xatal ak yeneen yu ci mel muy crimes against humanity loolu yi nag ginnaaw atte ba ca Switzerland daal dinañu joxe li xam ne rek mooy euh, verdict bi muy rek dogal bi rot na ñaar fukki ati kaso les ko rek daal di tëj ñu dem ci beneen yéenekaay yi yéenekaay bu ñu jàll euh, mooy yéenekaay bi lee di Foria Foria moom itam xëy euh, bind lu am solo nit ki rek nu ko standard defee ci ko defee rek moom it ñu jukki ci lenn ci rek ay xët ca moom bokk na rek ci Euh, police yi euh, muy rek alkaati yi di nañu nag euh, jël ki nga xam ne dañ jàpp ne dafa rek demoon li nga xam ne rek moo di ab trespass daal di rek dem dugg ci fi nga xam ne rek moo di benn ci kër ministre yi muy rek ci jëwrin yi doon fa rek daal di vidéo di wane li nga xam ne rek mooy moomeel yeeg yu ca demee noona ñu jàpp ne trespass la moom nag yóbbu nañ mbir ma ca yoon ca magistrate ba foofu ci Kanifing magistrate code lañ ko yóbbu ngir lu jëmoon rek ci atte bi atte bi nag waa ji di Abdou Aziz moom nag daal di nañu ko rek bàyyi bàyyi ni nga ndiku ci ay Gambien yoo xam ne ñoo ko rek seede dinañ wéyal àtte bi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett euh, ci weeru euh, mai ñu daan waxaat ci beneen euh, ponk wala sax ci beneen yéenekaay muy di Point Newspaper di Point Newspaper moom itam xëy na bind lu am solo ci rek xar-xanam yi su defee rek ñu daal di ci xool benn moom it dafa dikkaat sax ci ki nga xam ne mooy ex Gambien intérieur ministre Sonko maanaam ci nguur Yaya Jammeh gi euh, ci di wax ne rek tey ji la war a xam li nga xam ne mooy féetam xam na ko ba noppi ndax daal nañ ko daan ñaar fukki ati kaso yu mu war a rek daal di tëdd bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi euh, su ko defee rek ñu daal di it waxaat ca leneen lu jëmoon nag ci mbirum Ousseynou Bodiang moom bi nga xam ne moom la ñu tuumaal ne moo soqi ci euh, alkaati yi ci rek weeru si septembre euh, ci rek atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett ba rek faat ñaar ñi mu gaañoon kenn ki euh, fetal bi nga xam ne nag moom lañ jàpp ne moom la jëfandikoo ak li nga xam ne moo jëm ci bal ya mu soqi woon euh, bu ñu sukkandikoo daal ñi nga xam ne daal ñoo di state bi jël nañ pistol bi ak li nga xam ne mooy bal daal di ko yóbbu ca atte kaay ba lu jëm rek ci wàllu firnde mu ngoog yii moo gënoon a fës yéene kaay yi réew mi tey su ko defee rek